touche ay mbir yu xaw a doy waar euh, le départ précipité de Matar Ba certains n'ont pas compris Diatara dem rek ñu ne euh, Cour des comptes mhm. yow it yaa ngi koy wax sànq am nga problème ak la justice mi ngi en cours mhm. euh, sénégalais yu bëri tuddoon nañ la ci yu bëree bëri mhm. tey ji avec le temps yëf yi fan la toll waaw bon mooy comme li ma la wax man liñ ma laaj wax naa ko li ma wax télé moom laa wax ñi nga xam ne ñooy les auditeurs ñoom laa wax li ma wax loolu laa wax les enquêteurs et vraiment man tey li nga xam ne. vous n'avez rien à ah non non non rien du et si c'était à refaire j'allais le refaire honnêtement. parce que dañ ma dénk jox ma responsabilité et responsabilité yombul j'ai pas de cheveux balan par hasard <laughs> xam nga mhm. respon toog si vraiment ci mbedd bi lu wax dafa yomb et aujourd'hui ce qui nous donne des résultats c'est parce que tey dañuy war a mën a taxaw xam ne lii c'est une décision à prendre c'est une question de responsabilité ñu jël ko man bañu ma am jafe mais na ma secteur bi wala liggéey ñu ma denk na dox et pour mu dox dafay laaj gal ma am loo xam ne dama koy teg suma kaw pour mu mun a dox looloo tax ma loolu dal ma mais ku ma xam-xam ne je suis dans ce pays depuis combien de temps je suis fonctionnaire au ministère des Finances depuis combien de temps mm-hmm. aucun Sénégalais ne m'a jamais reproché quoi que ce soit donc si aujourd'hui on me confie des affaires de l'État et que dans le cadre d'une mission que les gens voient des manquements normal c'est ça mon travail man dama ko doon def ay nit di leen naan manquement yi lii la mhm. mais les manquements c'est pour encadrer ce n'est pas pour venir dire que Mamadou Ngom Niang nii la mel wala nële la mel parce que du loolu moo intéressé Sénégalais man ma mission c'est de servir ma nation et je pense que depuis ma nekk sport yàlla sutural nañu liggéey bi mu ngi dox yàlla ñuy may ay ndam et je pense que je suis aujourd'hui dans le secteur qui a valu le au Sénégal euh, satisfaction yi mu am yëpp donc bu ma mënul am fierté ci yooyu quelle soit difficulté yu ma ci am ce sont des difficultés personnelles mais li ci sénégalais yi gagné moo ëpp solo jar na ko te loolu la retenir sant bu baax